Euh, donc tey nga indi ci lu am solo loo xam ne ni euh, bu ñu ko dégloo ça peut nous servir euh, fii ci Sénégal ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy seetaan. ça ndax ay intoxication alimentaire un des risques la sécurité loo xam ne mën na doomu aadama mbaadu potu soow laa naan déedéet kay yeewu amee biiru tañ waaw nga laal sax fi nga xamante ne mooy gën a metti parce que euh, lu mel ne soow euh, tubaab naan ko lait mën na mm. nekk lait caillé wala lait bi nga xamante ne c'est non caillé c'est un aliment à risque boo xam ne nag duñ ciy faral di bàyyi xel surtout surtout euh, suñ koy jox xale yi nga xam ne xale bas très souvent yaourt lañ koy jox ñun nag dañoo am un comportement face à ces aliments la am na benn élément buñ ci def ndax lépp lu ñuy def dañuy dem ci spécialiste yi ko moom dem nañ euh, toog waxtaan ak un toxicologue expert dans le domaine après ñu dellu si sur le plateau commenté ko. bon le fait par exemple nga lekk loo xam ne si ni après da la indil ay problème ngay wëccu wala ngay mais ngay dem par exemple ci ci wanag yi ñaari façon d'intoxication alimentaire mu am am na ay bactéries yoo xam ne c'est-à-dire ay bactéries yu xam si ni day développé wu ci aliment bi. bactéries yoo xamante ni dañuy am une action directe dañuy dañuy dem ci cellule intestin ci intestin la ñuy dem détruire la cellule indi par exemple lu ñuy wax jaare jaare boobu mën na am vomissement c'est-à-dire mais ngay wëccu nga mais ngay dem wanag aussi di génnee deret loolu mën na nekk mën na am aussi le fait que bi day day day day day day am benn toxine mooy produit toxique bu muy génnee yoo xam ne si ni moom moom mooy agir après. waaw loolu ñaar yooyu mooy am donc ñooñu nag bu ñuy agir souvent ci ci ci production ndox mi ci ci cellule bi foofu la ñuy agir. am na cas yoo xam ne da ngay gis intoxication alimentaire yoo xam ne da ngay gis sur le champ mën nga dee parce que quantité bi ngay quantité de toxine bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay lekk dafa bëri donc déjà day dem day am day day détruire sa intestin automatiquement voilà donc peut de des des dégâts yoo xam ne da koy causer au niveau du la là forcément duñ mën ci yow dara quoi. loo gis rek dafa am yoon par exemple à l'usine bu ñuy defar ñoom seen médic seen seen mais les aliments ils ont un processus bu ñuy respecté l'emballage c'est important donc nga séparer nag lépp loo xamante ni day dem au froid. ak ay légumes et tout da nga koy séparer bu ko jënd bu ko boolee ensemble ci le même panier d'abord ça c'est un la conservation loolu am solo la donc lépp lu dem au froid les poissons les viandes tout ça da nga koy danga koy dugal ci congélateur bi lépp luy fruits légumes et consorts au réfri euh, euh, au réfrigérateur 4 degrés 5 degrés 8 degrés. maintenant l'utilisation balaa ngay utiliser sa aliment aliment boo xam xamante ni dafa war a dem ci chaîne de froid chaîne de froid lay dem. mën nga ko génnee nga jël li nga war a jël mais automatiquement da nga ko remettre au froid faut pas du waroo ko teg à température ambiante. boo tujjee par exemple les yaourts qu'on donne aux enfants bi ñu jox xale yi boo boo boo bo ubbee boîte yaourt bi automatiquement il faut le consommer. mais boo ko ubbee pare tëjaat ko c' pas hermétique souvent da nga koy tëj da nga gis y' a l' air qui peut circuler au niveau du truc c' est pas hermétique donc loolu rek déjà mën na commencer di euh, euh, le développement de certaines voilà de certaines bactéries quoi. liquide déjà dafa war a set ça c' est important da nga war a set ba pare donc avant euh, avant ngay jox lekk ay xale da ngay da ngay da ngay vérifier que ñoom set nañ seen loxo yi set na ainsi de léegi. avant nga koy jox xale bi da ngay vérifier état bi lait bi nekk c'est important waaw état bi mu nekk mooy boo ko jëlee bu bu xawee gonflé tuuti rek bu ko jox nga ubbi lait bi ba pare boo ubbee lait bi nga xool texture bi nga xool nu mu mel bu changé coloration rek couleur bu changé rek fa pas la peine bul ko jox parce que xamoo lu ci nekk. déjà boo ko ubbee aussi nga xam am na xet bu ciy génn rek loolu soo dee signes yoo xam si ni moo lay wane ne l' aliment dafa am contamination mu euh, sécurité alimentaire euh, c' est vrai que baat bi xaw na tubaabee mais mooy indi souvent euh, li koy waral mooy lekk lu lu fanaan lekk lu yàqu mu jox la biir buy daw ngay wëccu wala mu génne ay picc ci sa yaram lekk-lekk bu yàqu daal loo xam ni war warta dugg ci biir mooy jafe-jafe yi nit di am ba ñu tuddee ko sécurité alimentaire domaine boobu. Yacine waaw ne il y a deux ans domaine la bu fi nekk il y a un an du moins l'année dernière benn clôture de séminaire bu ma participer woon mm. xam nga y gendarmerie de l'environnement ah. te ñoom lépp lu jëm ci sécurité alimentaire bi dañ koy xamuñu ko et euh, un des commandants m'avait interpellé pourquoi pas duñ ko def ci alam bi parce que y des dangers publics ah. yu yu ci am mm. am na sax temps yi soo gisee ci actualité bi ay nit yu dem ba toglu di sulli ay euh, produits alimentaires di ko dem di jaayee ci marché bi Cheikh mooy ñàkk xam man na ma ko jàppe ñàkk xam foogu ma ne euh, euh, bëgg def maa tey la parce que soo xamee ne lii soo ko jëlee jox ko doomu aadama mën na ko indil loraange wala mu ñàkk si bakkanam je pense que ñàkk xam la léegi nag on a pris euh, sujet bi le temps qu'on rencontre la gendarmerie de l'environnement par rapport à sa li li koy faral di indi il faut ñu xam ko Pape Cheikh Diallo dafa am façon lekk yoo xamante ne lekk yoo war a denc ci fu sedd la am yoo xam ne ci congélateur nga ko war a def lekk boo génnee ba pare décongelé ko dem doxi sa soxla ñëw congelé waat ko xamal ne ci diggante bi am na lu ci yàqu te yëgoo ko te am na noo koy toggee mën na la indil ay ay loronge si sa si sa santé bi ci bi ci des tamit nit foog na ne dugal na ci congélateur am ñam mu def fa weer amul rupture de fois foog ne li muy lekk baax na fekk ne am na durée de vie bu aliment bi war a am si congélateur yow kon saw ba ma rey <laughs> Pape Cheikh lu am solo parce que sooy def euh, étude de risque bi le lait maa koy wax sànq. Euh, élément à risque la intoxication yi ci ëpp. à part ngi dee euh, xarul dañoo xaru. waaw te doo ko xam surtout xale yi muy laal parce que li da ngay gis yaay bu jënd yawu dugal ko ci frigo bi walla congelateur bi courant coupé ñëwaat nga ñëw rek. jël euh, soow bi jox ko xale bi wala nga jël yaourt bi dafa am benn comportement euh, sur le plan de la prévention mm-hmm. maanaam euh, fagaru bu ñu war a def soo mm-hmm. jëlee aliment balaa nga koy jox xale wala nga koy jox ay nit am nga loo ci war a def mm-hmm. war nga li njëkk mooy ñuy surveiller date de péremption yi te ñun du ñuy faral di ko def da ngay def confiance boutique wala surface bi nga ko jënd ñëw rek daaj ji consommer te fekk ne peut-être ñoom am na lu leen rëcc ci loolu muy date de péremption bi bi ci des mooy emballage bi nga yor war war nga ko xool su xawee funki tuuti wala mu mu gondale sànnil bëgg lekk wala xiif euh, wala sax nga war a def benn affaire jaru ko parce que après li ci ëpp li nga ci nar a dépenser sur le plan de la santé moo ëpp euh, beneen bi ci des Pape mooy soow ubbee ñam bi war nga xool texture bi xam nga nga jël euh, soow di ko lekk gis ne dafa ratax te soow warul mel noonu c'est pas loo xam ne war nga ko utiliser bi ci des tamit mooy xet gi war nañ ci euh, bàyyi xel waa texture bi mais mm. aussi li muy li li xeetu lekk bi di dégagé war nga ko mën a xool muy ci soowa ah, muy ci yàpp ak yëpp am mm. na ndawal ak leneen am na noo koy xoolee ak seetlu boo ci am di nga xam ne lii sa xel su ci ñaawee rek jëral nga tege de côté euh, def leneen beneen bi ci des mooy soo demee ba munta ñàkk ba munta ñàkk parce que loolu yëpp ab sa sànq yaa ngi may wax ne mm-hmm. euh, soo bi nga naan xeeñul deful dara dañ lay wax nga am noo ñame tuuti li ngay lekk mais doo ko wan soo gisee toxicologue bi wax na ko gis ne am na guu wala sa làmmiñ di xasan wala nga am looy dute sànnil parce que les conséquence maa ngi koy wax sànq euh, Pape euh, am na lu ci mel ne choléra xewoon na fi mhm. luy mën a contaminer ñam la mais li ci ëpp très souvent benn microbe bu ñuy wax salmonelle mhm. mooy faral di contaminer lekk yooyu ci ni ñu euh, conditionné lekk bi donc premier symptôme yi ngay am mooy biir bu metti wàccu fièvre li ñuy wax nag mooy su la dalee teelal daw dem ci médecin parce que am na ay heures yu muy def yoo xam ne su ko defee rek mën na la indi loraange parce que biir buy daw ak wàccu da ngay manqué ndox bàyyi cher en attendant de boire de l'eau il mm. faut nga daw euh, nga dem fi nga xamante ne mooy chez le médecin jëy na ba moi de de je pense que aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boutiquiers yi ak ñi nekk ci grande surface yi am na nañ ci part de responsabilité parce que du ma tudd euh, peut-être euh, grande surface bi ma demoon mais gis naa euh, benn rayon bi nga xamante ni ils ont mis là-bas des produits yi nga xamante ni ay 5 jours wala ay euh, deux jours moo des pour seen date de péremption daal di jeex. aussi il faut que ñu koy ñu koy. ñu e bàyyi xel y a même des gens qui vont jusqu'à falsifier le la date de de loolu am na. ah oui y a y a euh, y en a dans les boutiques il y a dans les grandes surfaces. Mm-hmm. parce que dañuy wax ne que bu ñu bu ñu sànnee produit yi euh, seen pertement lay nekk donc ils font tout pour falsifier ça loolu kenn nettalu ma ko maa ko gis. donc euh, euh, loolu aussi il faut ñi nga xamante ñoom ñooy waa service d'hygiène gendarmerie de l'alimentation gendarmerie bi nga wax. voilà ñoom aussi ñu bàyyi xel ne. ci grande surface y a des choses qui se passent te nit bu demee jënd grande surface lu muy jiital mooy sécurité. xel day dal xel day y a même une une il y a plusieurs services compétents il y a aussi une division de la sécurité alimentaire. ils sont sur la VDN ah. c'est pour l'administration sénégalaise ñoom loolu mooy seen rôle fépp foo dem gis fii ñoo ngi jaay produit bu ñu falsifié date de péremption bi wala sa xel ñaaw ci soo demee wax leen ko ñoom dañuy def descente sur site mais en fait lu tax ñuy toog ñuy xaar ñu leen di wax ils font des contrôles ils font dans les dans les dans les grandes surfaces oui oui mm-hmm. parce que bu yàggul ci RFM maa ngi déglu mhm. que dañu demoon wër ay maanaam ay boutique ak yenn mhm. bërëb yoo xamante ne mhm. euh, dañ fa doon jaay ay produits yoo xamante ne dafa seen durée de péremption expiré na ñu dem di ko lakk ci benn dëkk mais bu ñu jógee ci dëkk boobu ba wane ginnaaw dafa am ñoo xamante ne fa ñu ñuy dëkkoon dem di for yi nga xamante ne jotuñu lakk mais de bi ñu leen sensibiliser rek la première chose qu'ils ont fait dañu def benn appel au niveau de la rajo ci RFM mais dégg ba pare ñu dem doon def enquête pour jàpp képp koo xamante ne da def lu ne mel. parce que ça. ils font ils font un travail hein, mais comme ni Dieynaba di wax ils font des descentes. mais beaucoup plus dans les très grandes surfaces yi nga xam ne tey nit ñi fay dem dañuy bëri bëri boo xam ne su fa dara kii rek mën na def benn. benn benn benn catastrophe peut-être euh, bu am solo parce que nit ñi ñiy dem dañuy bëri mais xam nga muñu mënuñoo daj ruq-ruqaan yi donc il faut une une action participative de la population que les gens dénoncent soo disee si koñ sa boutique gis ne moo ngi fay jaay loo xamante ne lii su su ko nit ki consommé wala ni mu koy conditionné du noonu mais soo leen ko waxee ñoom dañuy ñëw euh, euh, tegaat ko ci yoon ba nga xam ne yi nga xamante ne dañuy fay seen frigo yi guddi suba teel ñu taalaat ko te di ci denc ay bi ma si bëgg a dolli bàyyi cher bi ma si bëgg a dolli muy lu am solo mooy comportement dañuy sakkanal courant bi bi ma si bëgg a wax mooy dafa am cas yoo xam ne euh, j'ai une cousine bu ko dund personnellement te expert bi ñëw na ci bàyyi cher mooy ni ñuy ranger frigo yi ñun duñ ko xam xam nga frigo dafa am partie boo xam ne réfrigérateur bi la am partie boo xam ne congélateur bi la munoo jël bàyyi cher tout le temps j'ai une cousine bu ko dund jànq bi da doon jël mu xam sa di ko euh, defal xale bi su desee rek mu delloo delloowaat si biir ñun ñëpp noonu la ñuy def ci même fi mu koy de jànq bi day génne euh, ndawal wala kii décongelé ko si frigo ah, donc dans la manipulation puisque ni mu conservé woon ñaw bi kiiwul dafa am une contamination du peut-être déretu ndawal bi moo si dugg donc les enfants ont subi une intoxication alimentaire aiguë boo xamante ne suñ ci teelu woon jóg mënoon nañ ñàkk seen bakkan donc ni ngay ranger frigo bi ngir yàlla rasuuli li nekk si congélateur bi soo ko génnee na nekk loo war a togg euh, partie bi nga xam ne mooy réfrigérateur bi soo dajee boîte de conserve parce que am na benn intoxication alimentaire boo xam ne pas doo ko gis léegi mais mën na la indil paralysie te loolu. waaw si boîte de conserve yi def thon lay faral. di jóge maanaam soo ko dajee bu ko tëjaat rek dugalaat ah xam nga baaxul léegi nga lekk sa sardine ba pare jël ko eh, euh, conservation si plastique ñoo ngi koy jaay ah. un peu partout sooy conserver ñam danga koy conserver hermétiquement te bu mu def plus de deux jours si frigo bi su fekkee ne courant dafa coupé si diggante bi nañ ko dindi parce que dans les hôpitaux et euh, étude bi ñu def en 2011 par le euh, le groupe des, des vétérinaires mm. ils ont vu que euh, bëri na ay cas d'intoxication mais très souvent si lu jëm si viande wala jën très intéressant en tout cas duñ ko fi yemale on va sensibiliser dañu continuer euh, di euh, leen jàppale di jàppale itam suñu bopp parce que yi ñuy xam ni ñun ñoo koy xamandoo ci jotaay bi merci Yacine très intéressant li nga ñu indil ci wàllu sécurité alimentaire ñun ñëpp dund nañu expérience bi donc ku yebu rek farlu gën di faggu ci yi ñuy ci biir kër yi ak yi ñuy jënd ci boutique yi na ñëpp sob euh, di xool étiquette yi euh, di xencu lekk yi euh, bu amee bu fanaan bu deedu ñam wu tàng ngeen xool ko di ko di ko yër ça permet peut-être ngeen gis ci loo xam ni dina leen éviter bu ngeen ko lekkee mu indi leen ay gàllankoor am na fu ñu jëndee hamburger bu yàggul avec mes enfants mais sama doom ju hôpital la mujjee hospitalisé ndax hamburger bi ñu jënd voilà j'ai pas cité fi ma ko jëndee Euh, mais daal euh, muy lu doy waar euh, ci ci clinique bi la la mujjee di wëccu biiram di daw et tout ça pour vous montrer que ni sujet bi Yacine indi c'est c'est c'est très intéressant merci ñu ngi la ci gërëm bu baax dix heures cinq mooy doogo jot ñu ngi leen di xaar ba tey ci téléphone yi